paysan. ok en tout cas di fàttali que ne rencontre bi euh, c' était entre le président parti PASTEF ak euh, li nga xam ne euh, moo di Jean-Luc Mélenchon moom mi nga xam ne moo jiite parti boobee di les journalistes yi nekk fële ci diwaanu France leen li nga xam ne ko waxtaanee docteur très rapidement mooy démb en conseil des ministres moom jëwriñ bi ñu dénk lu jëm ci wàllum yoon ak yoonale di maître Ousmane Diagne wax na nag wàllum rapport loolu soxal wàllum Covid 19 nag fii ak ay fan soo moytu dina am lu ci bees ndaxte mbir la yoo xam ne dinañu ko dal di topp. loolu <laughs> koy amul dana mel ni. dinañ koy topp. waaw danañ ko topp leer la c'est-à-dire que. Mhm. Euh, bu ñu ko toppul sax man Sonko su boobaa sénégalais dañ ko war a mere. et quand je dis Sonko mooy. Mhm. projet bi quoi. Okay. mais li xaw a jaaxal ñu y' a plusieurs rapports yu ñu génnee pourquoi tout de suite ñu ne. force Covid 19 quoi Covid 19 pourquoi ce ciblage aussi. Covid 19 oui. xam nga Cour des comptes dafa am rapport annuel ak rapport particulier Cour des comptes du rapport annuel de. Mhm. rapport particulier la. particulier benn mbir mooy xew euh, cour bi organe de contrôle bi ne xaaram xool li mbir mi nan la demee parce que dégg naa doxalin bi yorin bi sellul léegi bàyyi ma dem wër wala bëgg naa xam nan lañ ko gérer <laughs> mais Covid 19 il s'agit de 1000 milliards. Oui. on nous a prêté 700 milliards yoo xamante ni nous sénégalais yow sénégalais même Macky Sall il paye et ba matul même sa doom ba day day fayoon sa soxna parce que dañu ko abal. ñu abal ñu ko ci circonstance ci ci contexte boo xamante ni dafa métti nit yi di dee nit yi am traumatisme ñi ñu couvre-feu leen ñi ñu état d'urgence leen ñi am problème ceeb ñi ñu dàq leen ñii dee ñii ñu bëri dee. ñu dajale ñu ne d'accord dañuy def lu ñu tuddee suspension des procédures passation des marché donc dañuy def lu ñu tuddee procédure d'urgence violer tous ce qu'on le code marché public pour mbir mi gaaw mais mu am ñoo xamante ni dañ ciy profité def loo xamante ni yoon da koo tere c'est pas moi qui le dis c'est la cour cour bi moo ne am na ñoo xamante ni lu ñuy def tout sauf lu sérieux la ay tappale kese jël ay nit enrichir leen benn nit a ñetti entreprise mu gagné 17 mars ñu jox ko 15 milliards loolu sëriñ bi loolu c'est in inadmissible dans la tête nit mënu ko nangu mu am ñoo xamante ni ñu ne leen ñii dañ leen jox ay xaalis. ñuy retirer chaque jour cent million mais cent millions nit nga retirer ko dix fois. dix fois ba mu boo ko compter mu nekk un milliard cinq cent. ñu laaj ko léegi garaaw bu doon da nga yàkkamte sax ok mais xaalis boobu nga retiré gisuñ foo ko dugal mu dem ci sénégalais yi donc xaalis boobu dafa war a leer ñu gis ay nit ñoo xamante ne ñu ne ñii dañ leen dimbale rapport bi ne dimbale wax ngeen dañ leen dimbale mais gisuñu benn yoon liste bénéficiaire mais xaalis fan la jaar mais loolu bëri na fi loolu mooy. les irrégularités yi am dans le rapport de la cour des comptes c'est pourquoi c'est du sérieux le gouvernement actuel bu ko defulee sëriñ bi bu mu fi waxat leneen lu dul luy transparence parce que léppay lëndëm su boobaa hmm. parce que lii xaw ma de da nga jàpp ne priorité wala super priorité. c'est plus qu'une priorité. <laughs> yàlla xam na ne c'est plus qu'une priorité xam nga on n'accuse personne. Oui. mais le Sénégalais. Hmm. ne serait que par curiosité dana war a xam. Hmm. parce que ñii bu ñu leen àttewul xam nga lan lay tout le monde dira ko en tout cas ñenn ñi kenn kenn man man damay wax ne leeru damay wax ne am nañu sàcc xaalis mënoo ci dara donc justice moo war a fexe ba ñii nii ñu tudd ku nekk ñu woo la ñu ne la yow lan mooy si sa responsabilité ci mbir mii yow da ngaa joxe xaalis d'accord waa léegi war ñu ana foo ko dugal. loolu ko yomb na. Mm-hmm. Bamba lañ jox 1000 francs Bamba nee na jox naa ko technicien bi jox ko caméraman bi léegi na woo caméraman bi ñu seede rek jox nañ moo la joxuñ ma amul débat. mais Mansour Faye génn na weddi ne dañ koy tuumal amul benn rapport bu ko gëstu toppewuñ ko dara. moom eh, yow man dama lay jox benn <laughs> exemple man dama lay jox Mansour Faye. léegi après c'est ce qu'il a le ministre moo nekkoon ministre de de de de l'équité xaw ma lan. territoriale waaw souveraineté alimentaire xaw ma moom. ak Abdoulaye Diouf Sarr man dama lay woo rapport lu mu wax xam nga yaa leen tudd rapport bi daf ne malgré le fet que ñu suspendre les procédures d'urgence ñu war a jaar yoon pour nga joxe marché malgré que ça pour mbir mi gaaw ñoom def nañ commande ceeb def commande équipement matériel médical médicaux ñu toog ñenn ñi trois mois ñenn ñi quatre mois gisuñu lenn luñ commandé. retard de libraision des, des biens ou des produit commandés pendant ce temps on vous dit yi dañoo soxla produit alimentaire denrée alimentaire pour ñu yóbbul leen xam transporteur lan la ñu waxoon mhm. dañu waxoon ne ñun transporteur si Sénégal lañ bokk ñëpp a ngi cotiser ñun am nañ suñu oto léegi bu leen ñu ñun fayekuwuñu léegi jox la ñu wax la fan lay dem ñu yóbbu ko Tambacounda ñu yóbbu ko Tamba gars yi ne leen ñun dañuy fay ñun dañuy fay waaw léegi yow Bamba ma la sa sa sa mariage. Mhm. wala sa leneen lu ngay def mun naa la louer mën naa am naa samay bus jox naa la ko gratuitement nga ne ma non ñun dañuy dañu louer mais parce que dañ ci bëgg euh, dara mais parce que man su ma la abalee doo ci doo wax ne facture naa bus yu nangam. Mhm. mais man su dee yow da nga bëgg a def tapale su ma la soo demee louer say bus bu dee da nga ko louer cent nga ne ko deux cent mille laa ko louer kan moo ci mën dara. Mhm. mais su boobaa loolu mooy tapale bi mooy ko sénégalais yëpp am problème am ku wax ne man mun naa la abal mun naa la may te loolu li ñu doon laaj du dara lu dul fay leen essence parce que fay essence bokkul ak loué camion boo ko loué fii xam nga ne bu ñu la waxee luwel camion bi ñu dem Kaolack. Mhm. ak jëndal essence luy dem Kaolack xam nga ne bokkul. gaa yi na ñun dañu loué nga gis camion camion même bu dee da ngay mais du camion mbalit mooy loué mooy yóbbu ceeb camion mbalit yóbbu na fi ceeb. Mhm. waaw loolu lu tax lu tax ñu bàyyi fi camion yóbbu ceeb. ñu jël camion mbalit camion mbalit lan la yow yaa ngi jox nit ñi lekk bari dugal ay camion ay mbalit <laughs> loolu je dis bien loolu <laughs> sérieux loolu dañ ko war a régler loolu mooy li gën a ndaw ma dem ministère beneen femme ministère de la femme xaw ma kan moo fa nekkoon kooku dafa dem. ñu ne ko xaw ma kan la <laughs> dañ dem foofu. dañ dem xam nga man dama leen ñooñu dama leen mere. waaw ah, allez parce koy dama dafay métti. Uh-huh. kooku xam nga lan lañ def. Uh-huh. dañ ne. soxna si yow da ngaa yore ministère bi d'accord yow sax da ngaa mën jàppale parce que jigéen ñi fi lañ nekk xale yi ainsi de suite bon couche vulnérable bi dafa xaw a nekk fii mais yow ci dimbale bi nga wax ñi nga wax nga dimbale ñun dañuy gis seen tour ci list bi gisaat seen tour ci liste bi waaye bu ñu gisaatee seen liste yi montagne day wuute. Mhm. Massamba nekk ci liste une ñu jox ko six millions par exemple mu demaat ci list cinq ñu joxaat ko six dix million waa léegi booy jàmbale Massamba ñaa Sénégal xanaa Massamba rek moo fi nekk. Mhm. ñaata nit ñoo nekk ci Sénégal jamono jooju am problème cent mille boo leen joxoon cent mille rek doy na ñii nag c'est des millions nga leen di jox waa léegi sur quelle base est que c'est que ces bénéficiaires sénégalais mën na poser la question et la question dafay légitime. Mhm. qui sont-ils c'est des militants c'est des partisans c'est des membres d'une famille. ok c'est des proches. Mhm. loo ci xam da nga ci xam dara. pendant ce temps sénégalais yi ñu doon dàq. suñu yaay yi dañu doon doon teree jaaye caaf. <laughs> mécaniciens yi ñu waroon leen liggéey Colobane marchand ambulant yi ñu ñemee liggéey yi parce que bu ñu demee liggéey bu ñu tardé du ñu am oto bu ñu amul oto takk dee di leen dóor. à loolu am fi léegi am ñu jël xaalis di ko sàcc léegi ñu ne du leer na leer procureur je dis bien le ministre de la justice a très a bien ouvert à sëriñ bi. li lii am fan yi di ñëw. Hmm. balaa juillet. Hmm. wala août balaa yàlla. di taw probable. balaa août. ah 15 ay gars yi dinañ wóor 15 août balaa 15 août. Ah. bindal bindal fii balaa 15 août ñu bëri dina ne wuyu ji. ñu bëree bëri. ñu bëri dina dem wuyu ji. ci dossier Covid 19 bii. mais déclassification rapport IGE bi fan la toll parce que nee nañ tant que déclassifié ko mën nañu ko publier de ko